jërë ngeen jëf mbokku internet yi nga xam ne yéen ñuy bàyyi xel ñu ngi am mbégte kontaan àndaat ak yéen waaye comme ni ñu koy defee saa su ne rek di leen kilifa diine yi nuyu kilifa aada yëpp ñaanal way dawlu yi yàlla yëral ñu te xaarle àjjana ñaan ñu tëdd si loolu hôpital yëpp yàlla fëgg seen bopp waaye duñ fàtte mukk ñi nga xam ne ñoom la caabi féete ginnaaw ñu leen di ñaan suñu borom dimbale mën dellu saa suñu biir ne njuumte du wees sa desena suñu borom a koy sàkk bam fépp foo xamante ne nii détenu mi ngi fa rek maa ngi lay jox jëfal bu baax a baax a baax di la ñaan suñu borom génnee war la bu baax nuy diaspora bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp tukki neex na waaye ñibbisee ko dàq waaye maa ngi ñaanal ñi nga xam ne mooy sama gaay comme nu leen tooñee sax su ne rek mafia Nicaragua bi leen jaajëfal a baax a baax ko lam-laamee ci waaye kenn ko laam ci réew mi muy kan muy bu ne Paul Paul Paul mu géejawaay bu ñëwee Paul Paul nga xamante ñëpp xam ko ci ki nga xamante ne nii mooy Ama Baldé waaye ñëpp xam ko ci ki nga xamante ne nii tamit mooy Balla Gaye 2 waaye ak géejawaay gi nekk taxawaay bi nga xam ne am na ko ci géejawaay ndax yaakaar naa ni autorité bu jógee ci dëkk ba sax bo bo boo all ba bo ñëwee am lo bëgg ci dëkk bi di nga ni xaama xoli pool waye pool maa ngi ni ñu ngi lay fay di la nuyo bi ak sa caméraman bi di len ziar bu di tam si déplacement bi ngeen def pour ñëw fi pour ñu waxtaan. Mm-hmm. la jaajeufal baba baax a baax. Mm. Paul en tant yaa ngi tant que géejawaay porte de voix nekk ci géejawaay mais yakana naa géejawaay yi ñu nekk bari na lool. barki dem moo Ndiaye gis na ba bañ demee gis ak jàmm gën waa Kër si Cité lañ doon wax ci combat ginnaaw ba combat la da gee Cité jàllee coole bari woon waa jàmm gën moom fu toll nii joxoñ baaraamu tuuma ki nga xamante joxoñ baaraam ki nga xamante ni rek mooy Balla Gaye 2 coole bari woon loolu balaa boobu tamit gis nga mbëri yi nga xam ne ñoo fi bëri ci journée alburax bi mm-hmm. ñu joy cool yi bari woon si loolu mu bëri commencé bari xam nga kenn ku ne génn def sotti noo jàngatee loolu. waaw loolu moom xam nga làmb ak coow ànd. comme li nga wax ci wa jamm gën nak gis na len temps ñi def ay vidéo di xaxar di xaxar mbeur mi di xaxar lak da guerre du mané sax wa jamm gën ay supporteru site lay wax mais ñom li ñuy def non man dama ben jangat la ci am ñom manam li ñuy doxale non kon kon nangu nañ na site du champion nangu nañ site du champion waaw ñom sen doxalin la gis mm. bi combat bi jexé ñom niñ réactioné ñom supporteru site yi mm ñom kon war nyom xam ne du champion ndox mbeur mënuñ la tenir ngay daw Siteu beureul da doon négocier combat bi lolu jour lamb ji suba la len ko wax nee naa leen beureul da naxante si legi yow sa mbeur beure ñu duma ko yóbbu ko ardo du yóbbuwaat yóbbuwaat ko ardo duma ko mu génn saako yi Siteu ben coup la fa dor moy coup bi mu lancer non moy doru tapet yoy non bobu la def taxawat ay supporteram yuuxu sa waay mënu japp jàpp di rasu bolam lamb ji jeex ñu jox lak de guerre victoire c'est parce que moko mérito légui ay supporteru Siteu ñoom bu ñu amoon jom ñoom waruñu sibile si lolu yenn pour man tax ñak gëm sa bop la wala ñak gëm sa mbeur tay bu fekkon lak de guerre moy Siteu Siteu nek lak de guerre mu démé nonu lak de guerre du duggu géejawaay ndax bërewul ñun bañ mbëru géejawaay bu bëre daanu mais na nga wane fulla ak fayda Lac de Guiers kenn amul lum ko keroog dafa wone fulla ak fayda milieu làmb nag dafa xaw a bëri ay affaire de hypocrite quoi xam nga ay affaire de par parlo gars yi xam nga dañuy am ay mbër moo tax booy xool ñii anal analyser ñu bari duñ wax dëgg li ñuy wax yëpp booy xool teguñ ko si yoon daal da xam ne ñiy waxu far la ñuy wax Lac de keroog ñoom def nañ lu ne pour mu daanu mais ma xamalaa leen benn affaire Lac de du mbër muy daanu léegi ñun d'accord nañ man man Paul d'accord na doomu géejawaay la Lac de doomu géejawaay la ñoom nit ñi nee nañ mënul bëre dëgg la Lac de Guiers mënul bëre dàqul kenn bëre mais kenn dàq ko bëre tamit ndax mosul daanu coolee bari ni ku ne di wax rek mais Lac de Guiers mosul daanu Eumeu Sène bi ñuy wax sax daanu ko léegi ñoom ñu ne Lac de mënul waaw dëgg la d'accord na Lac de mënul mais kenn kenn mënu ko tamit man foofu laa ko jàppee te Siteu nag góorgóorlu limi def ni du lamb day négocier limi def ni ay négociation la rek Siteu manam du mbeur artiste la deug la nak day taral lamb bu ñewé sa bi dina fess xam ambiance dina am lolou duñ ko ko bañal dañ ko koy nangul mais encore une fois du mbër. Siteu du mbeur da ñepp dañ Siteu dafa mëna bëré donte nak fi ni acci acci na si VIP mo ko li jëli mi daan nga xam Papa so jëli bu ko daan bëré ba aksi fi ci ñu tax ngeen ni dumber, nga dumber, ay naan dumber, du mbër jamagan du xam nga do dumbeur deug la jamm gën mo fay tedd de file Siteu moy tedd de jamm jamagan, mënul daan sam ci Siteu buñ ko tëggoon nak sam booy mënu leen daan ci Siteu mënul daan ciatu daw dafaal mënul daan ñaamu ndaw mënul daan Jackson kon koku du mbër Diamaguène bu yeboo ñu jéem a ngemb keneen mënul daan manam mënul daan poids lourd xam ma dafa amul beure comprendre mo mais nit ñi nañuy wax deug way Siteu kérok mënul nekk genn genn saako yi gennati saako yi lamb jeex aduna yeb di ko liñ bëggon du am pour sito dan lak da Guiers loolu mënul ne. lak da Guiers ñu gëna eus ës jaar nañ fa mënuñ ko daan modlo mënu ko daan boña mënu ko daan Tapha mënu ko daan ñeneen ak ñeneen mënuñ ko daan ñew di ko daan lak dagger bu ko Siteu daanoon du du dugg waxe mo gagner combat bi ndax mom la yëkëti loxom té mo moo bëre bëre bi nañ ko féliciter sénégalais nañ bayyi soxor. lak dagger Guiers mbër la musul daanu. encore une fois. mais bu jógee foofu yaakaar na ni gis nga ki nga xamanteni ni moy mooy sa Siteu ñu déggoon benn discours bu Balla gay defoon ko. né na koy may nañu bu daana la de Guiers ma may ko sens mais yaakaar na ni wax jojo dafa mel dafa commencé jour ay ben ay choy détail ndaw. xam nga gis nañ ñenn ñi sax di géej waaye di xalab ñenn ñi xalab Balla Gaye ñenn ñi naan ay Lac de Guiers dafa wéet ci combat bi jàmm gën def arme loolu la Balla Gaye de nañu ñu surtout ak Balla man mii sax dama ko bëgg man mosoon combat wu day taxaw nii hmm. surtout li ma gis muy bëre noonu Balla buñ bu daggoon ñaari tànk yi suul ko surtout mënu koo daan hmm. li ma gis mu bëre keroog. foo teg loolu. bu Balla Gaye wu laa la ñëw stade noonu kese laa la hmm. li Siteu andi keroog mënul daan Balla Gaye ndax gisuma fa bëree bu daan Balla Gaye 2 loolu moom dama la koy waxaat nga dégg coow li nag comme li Balla Gaye wax noonu ay Siteu bu daanee ma may ko sens ak yooyu Balla Gaye waxu ko Siteu Balla Gaye Maama xaritam la am na droit ñuy waxtaan Maama bu ne ko sam booy bi doo ko may sens mais mënul ko wax leneen lu dul loolu bu daanee ma may ko sens ñoom ñaar ñu tooñante Balla du moom moo woo Siteu ne ko lii lii de. siqul ak Siteu lolo. deug la mama Lamine wayam la ñom ñaar sik nañ ay waxtaan ay kaf ak ree kaf na wax ko loolu bu ne ko sama boy bi may waxtaan tamit loolu la ko mëna wax lu mu koy wax lenen mbeur bu mbeur bu ñëwee ne morom mbeuram may ma sens pour nga yok ko jom dang nga naan ko fexel daan wala prouvel bo prouver ma may la sens loolu yag na ci lamb gaay nañ bay wax yi ñi jël di ko fu mu yegul comme cool yi ngay wax géejawaay maa ngi koy dégg maa ngi dégg coow yi kii bu waxee jaar ne kee wax jaar ne mais di waxaat encore une fois gars yi nañ gëm yàlla te xam ne yàlla mooy maye quoi làmb làmb la te làmb day jeex da nga doon wuuti am di am boo wuuti jee tey yàlla xañ la da xam ne yàlla moo la xañ fi yàlla rek ay maye kenn mënut a xeex kenn kenn mënut a yàqal kenn ay mbër yàgg nañ fi bëre di daan bu ñëwee ñu félicité leen. mbër bëre na fi daanu bu ñëwee ñu encouragé ko te du tee ëllëg buy bëre jiwaat dañ koy topp mais nit ak lu mën di xew rek yow da ngay suuraale ëllëg looy wax rek bàyyi si xel ëllëg quoi ndax ñun géejawaay du ñaari bopp de benn bopp la amul ñaari bopp benn bopp la leen nag am na géejawaay tey bala Gaye 2 moo ñu boole si làmb munuñu lu dul di ko honoré moom moo ñu boole si làmb moo fi dugal roi des arènes ba ñun ñëpp ñu nangul ko loolu mais ki ñu defal loolu si làmb nag fekk mi ngi ngemb di bëri ji dañ koy topp waaw Balla Gaye du woo supporter waaye ñoo ko bëgg gone ak mag góor ak jigéen loolu lu ko yàlla defal la te bu bàyyee làmb tamit booy fi nekk mën na leen di jàppale ndax gis nga mi ngi jàppale yenn booy tey man leen laa contre ñu ñu dëgg géejawaay maanaam di coow suñ biir ñeneen di dégg te booy xool gaay li ñuy coow sax jaru ko géejawaay ëpp ay espoir si làmb fii ay champion rek a fi yeewoo ay champion rek a fi yeewoo kii bu daanoo tey ëllëg keneen dina daan yàlla moo dogalee noonu ay mbiram. mais espoir yi moom bari nañ géejaay mais fu mu toll géejaay moom tas na saa saa gis nañ Mathieu def benn sortie ndigal def na sortie wax. kenn ku ne def màjj màjj barki démb def na fa démb sax yaakaar naa la maaj màjj def na sorti wax moom it xam nga wax ci combat la gépp taxawaay waa géejawaay xam nga ñëpp moom fu mu toll nii géejawaay fu toll nii moom tasaaraloo na ko. géejawaay loolu tasu ko loolu mënu koo tas fii mbër yàgg na fi daanu wax lu ko neex gars yi moom bu ñu daanoo xam nga yaa ma gën a xam milieu làmb dafa xaw a doy waar tey sa nit mën na ñëw ne lii yëg lii ak lii moo la daan wala nga toog gis benn action ne lii moom a daan fekk na loolu jegewul sax la lay daan. di waxat ne gaay nañ dal ñom ñëpp ay champion lañ ñom ñëpp ku ci fi di ngemb di bëre ji dañ lay top muy espoir yi munuñ munul nekk ñaari bop ben bop rek la mëna don ndax dañoo bëggante gaay mëna ñoo mer waxante mais après dañuy andat ñu nekkat si jamu Balla gay 2 yalla may nako lim koy may ci lamb dañ ko koy nangul Lac de Guiers nangul nañ ko li ko yàlla may guy gi nangul nañ ko ko yàlla may ak ñeneen ñëpp booy ba suuf ñëpp nangul nañ leen mais tamit dafa am koo xam ne dafa ñu sagal si làmb muy Balla Gaye 2 li mu wax noonu keroog li lim li mu waxanteeg Maama Lamine loolu du fee loolu jarul sax taw yi du wax ju garaaw ñoom ay waay lañ te ñu respecté wante ak gone yi respecté mag ñi xam nga. ñoom ñu booloo nekk benn géejawaay li ñuy wut ñu mën ko am di ñaanal mbër yi ndaw yi fi nekk yëpp liñ bëgg si seen carrière yëpp yàlla defal leen ko fii ñoom ñëpp ay jàmbaar lañ géejawaay boo fi nekkul jàmbaar pour nga fël si làmb day jafe ndax dafa bari ñuy takk ngemb fii ñu ngi fiy dégg yëpp ay jàmbaar lañ ñoom ñëpp màccaak tout ñëpp ay jàmbaar lañ mais nag yàlla mooy bind te yemalewul ñii dañuy am sens bi si làmb ñee am lële ñee am lële maanaam làmb sens la quoi foofu laa gisee quoi ñu bàyyi coow yeeg yooyu ak détails yi. géej waat absence su Balla Gaye 2 ci combat bi keroog yaakaar naa ni loolu impressionné ñu bari. combat ba ak absence bi nga xam ne mooy public bi ñu doon xaar ci combat la de guerre si te public bi ñu doon xaar la de indi ko ci combat bi. waaw public bi non géejawaay tamit xam nga tamit nit ñi kenn mënu leen forcer ne kaa leen dem estade mënu nekk peut-être man Lac de guerre dinaa ko balaame si benn côté quoi benn défaut rek la am champion la nag nangul naa ko ba fu nangu yem mais benn défaut rek la am dafa war di dugganteeg nit ñi di wàcc si terrain bi xam nga dugganteeg nit ñi bu xewlee gars yi ñëw ñun buñ ko doon ngeem muy daanu mille fois du tee dañ koy topp ndax drapeau Guédiawaye lay représenté Balla lim ñëwul si open si kii stade bi nga wax wala open press bi. non def lu open press mo si ñew ci ko stade bi ci to ñew ko ne ñëwul këram comme ça ci kees ko defee. wa xeyna tay dafa am empêchement rek c'est que nit ñi tamit dañu waroon nangu ben affaire quoi gis nga aduna dafa am nu muy doxé nit tay amna foy toll rek yenn jot yi do to ko am quoi du question da ngay baña dem fi wala baña dem fe mais da ngay nek ci yenen activité yo xamné do am yenn jot yi faw nit ñi di la comprendre lool ba la ngay deug la mbeur la. mbër la mais kilifa la de ndax yàlla may na ko daraja loolu dañ ko koy nangul xëy na tey dafa amoon empêchement nekk si leneen ba tax na ñëwul foofu Lac de Guiers yàgg na def open press Balla Gaye di ñëw bëri na stade Balla Gaye ñëw Balla Gaye bëri na stade Lac de ñëw waaw ñoom ñaar defante nañ loolu ba taay mais bu amul nii xëy na tey Balla Gaye moo am empêchement open perasu su Balla Gaye bi ñëwuloon Lac de Guiers ñëwuloon combat Balla Gaye bi Lac de Guiers ñëwuloon nañuy wax loolu quoi di xamal Lac de ne ko daanu woo yaa daan bu la kenn dugal ci ay gëjë géejawaay benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar daanu woo yaa daan képp ku lay gëmloo ne la Balla Gaye lu tax ñëwul ci kii beeg ñëwul lii ak nañ bàyyi wax yooyu ay dafa war a ñëw ci open press beeg dafa war a ñëw ci làmb ji nañ bàyyi yooyu yooyu mooy jaxase yooyu baaxul quoi day jaxase ay ay nit ku si nekk lu la sa jot may di nga ko def lu la sa jot mayul munau ko def bala gay ak Lac de Guiers ay champion lañ fii ñoo fi tëdd fii lii dëgg la bala gay nag waaw moom la yàlla def muy mburum lamb gi fii nii géejawaay mooy diriger bu doon daanu ay mille fois sax mooy diriger loolu du ñun du si keneen yàllaa ko def waa géejawaay yëpp bëggu ko waaw Lac de rek waa géejawaay yëpp dañ ko bëgg kenn bañu ko de mais xëy na tamit nit ku ne am na ñoo xam ne Balla gay mo leen jaral dem estade am na ñoo xam ne de leen jaral dem estade am ñoo xamne Sa Thiès Balla gay newuma la géej waaye mo fi mën ni ni de munu fi de munul rakam rakam ko gëna a nekk jamono ji may wax yow ndax tenor yi ci kaw Sa Thiès leen mën man xamna lolu ya yaa may dégg Balla gay nekkul mo fi mën mais tedd fil na ñëpp nangu ñu top si ginaam top si ginaaw suñuy mag ñom buñ baye lamb sax di konne di di loolu moo gën a rafet ñu bàyyi xiiroo beeg ŋaayoo bi géewaay fii benn bopp la kenn mënu ko xar ñaam nan ñëpp nekk benn ku si am combat ñëpp soutenir la xàccandoo dóorandoo jàmm am mais muy combat muy waaj a taxaw la mook papa baari baari waaw mook papa baari baari mhm. loolu moom damay ñëw après ñu waxtaanee ko ak buusita moom ama am na combat moom it ama bébé ama am na combat loolu yaakaar naa dinaa fi ñëw ñu waxtaanee loolu bu diggante Bou Siteu ak Papa Bari Bari bi ñuy dox Bébé Ama tamit ñu ngi koy dox waa ñu bëri waxtaale loolu. Zos na jël caat caatu Daouda Fall. Zos mel waaw. Hmm. na jël caat histoire yooyu moom loolu moom xam naa ci mbedd mi lañ koy waxtaanee moom. Zos na jël na jël caat. Hmm. amul ragal. booy bi dafa nekk si yoon. Hmm. te géejawaay dañ koy yaakaar nii. instant yi géejawaay gi yëpp dañ koo ëmb. Zos na may booy bi saas du ko wàññi dara. boobu xale bu ndaw la ñi ñu koy zen ñi ñu koy maasee ndool sax ñoo ko mag wallaay azim mais na ko Zoss may sens ndax boobi mbër la te mbëru gox la tamit loolu laa gis ñaamu ndaw bu daanee Zarko Siteu na ko may sens Siteu na ñëw ñu bëre. ah Siteu kay toll ndaw day daan Zarko mm. bu daanee Zarko Siteu na ñëw ñu bëre. maa ngi dégg booyam boobu noonu toog di wax lu ko neex naan ñaa bu ndaw dama ko doon jàppale si ay affaire ak yooyu waxul dëgg loolu du dëgg ñaamu daw benn yoon la mës a gis booy boobu noonu benn yoon du mu tudd sax turam mooy booy sekk boobu noonu. ñaam waaw ñaamu ndaw benn yoon la ko mës a gis. Hmm. te suñu benn gain moo ko présenté Ablaye Naar. di ñaan yàlla fi mu nekk yàlla yàlla génnee ko fa mu ñëw si jàmm. moo ko présenté benn yoon boobu lañ mës a gisante. bu toogee naan day jàppale ñaamu ndaw waxul dëgg maanaam gis nga tur boo bëggee tur wala nga bëgg kii doo ko jaaral si nit ñoom yi ñu def aada faas noonu di jéem a siisu si booy boobu noonu duñ ko def booy bi de kii doomu géejawaay la buñ paree si Zarko si ta may ñu sens yow la ñuy bëral ñun lijjanti wuñ leen sax seen yooyu ngeen def dawul suñu yaram ñun fii la ñuy yeewoo géejawaay géejawaay la ñuy yeewoo si na may ñaa ñaabu ndaw sens bu ko mayul fu ñu ko fekk si làmb làmb ja dina jaxasoo. waaw fu ñu ko fekk dinañ dal si ko am ndax booyam boobu li mu wax du dëgg. moom moo sàkku lii nag. booy boobu du Seck. moo sàkku lii te si lim ñu woo dinañ si ñëw ak moom. Hmm. Siteu bu mayul booy bi sens dootul am jàmm si làmb encore une fois. Hmm. tàggoo rek. mooy li ma lay wax rek balaa maa tàggoo damay insister waat si Siteu. ñaa bu ndaw day daan Zarko bu daanee Zarko dina la tàllal loxo may ko sens ñun yow lañ bëgg a bëreel Siteu lañ bëgg a bëreel Siteu si boppam moom la ñaamu ndaw war a bëreel xam nga dox bëgg a bëreek moom ñoom bëgguñ drapeau dañuy siisu tarkindaay bëgguñ drapeau ñoom bu ñu xamee ne drapeau nga nii rek yaa ngi jug rek xam nga nga nekk espoir rek dañuy jéem dañ lay jéem a déstabiliser dafay affaire loolu du fii ñaabu ndaw doomu géejawaay la ñun ñoo ko boot dañuy bëreeg yéen par force buñ paree si Zarko gore leen ngeen may ñu sens ñun xam nañ ne yéen defoo leen làmb yéen làmboo leen làmb business ngeen di def popularité popularité moo leen di fay mais pas ay palmarès bu doon palmarès ak Siteu kon es du bàyyi làmb daanu fi kenn nañ ñu may sens di nuyuwaat ñëpp di tàggu ñëpp Babacar di la ziar bu wér a wér a wér di la wax ne sa liggéey rafet na yaa ngi wàcc ci terrain bi yaa ngi def liggéey bu rafet yaa sa caméraman xam nga booy feeñul woon yéen a ngeen leen di feeñal espoir yi loolu dañ la siy gërëmaat bu baax di gërëm ñëpp sama xarit yëpp di gërëm géejawaay gi yëpp xam nga autorité yi xam nga di gërëm Baye Baye Ndiaye Lat Diop gërëm Aziz Ala Ndiaye xam nga di wax ñu gën a jàppale booy rek ay Pape Mama Fall Baara Gueye Kilin awal nañ gën a jàppale booy rek xam nga tamit ëllëg dañoo bëgg tey xam nga di nga roi des arènes di jógee géejawaay ñun ëllëg loolu la ñuy ñaan yàlla ñoom grand frère yi béy nañ seen waar si làmp ndax ñoom ñoo ñu fi indil roi des arènes ñoom ñoo tax ñu xam làmp grand yi ma lay wax nii ñoom bañ si toll dañoo def seen këm laay kàttan ngem bu seen génération ba mu dégg roi des arènes kon ñun nañ góor góorgóorlu ñoom ñu ngi leen di tàllal loxo ñu gën ñu jàppale gën a jàppale booy xam nga ndax ëllëg tamit ñun ñu am lu ñuy tiitaroo quoi di ziar ñëpp nag dugaar maa ngi koy ñaanal yàlla may ko ndam waaw la jot tamit bu amaatee combat yàlla defal ko si li mu bëgg waaw. jaajëfal nañ ñëpp nuyu na ñëpp sant na gërëm ñoom ñu ngi koy jaajëfal moom it bu baax a baax.